mu mu neex ngeen war a ànd mais mu naxari waru leen ànd yow daal bu neexee ànd leen mais bu naxaree nga woon ko ginnaaw dem sa yoon ay ay ay ay ay ana loyauté ana ngor ana ngor ana lan mooy ngor ngor nga xam ne ngor bu ma boobu noonu yaakaar naa ci Sénégal rek la am bañ uddee ko dëkk sax tuddalee ko dëkk boobu noonu muy ngor ana ngor ànd ak nit ki mimi sama doom bi am dix ans sax xam na Mimi lim am ci Macky Sall lim am ci Macky Sall Aliou Sall bi bokk ak Macky Sall benn ndey benn baay makki namp jox ko mu namp amu ko ci ci ci Macky Sall Aliou laa la wax de Mansour fay mi nga xamante ne dafa jël sëram may ko Macky Sall li Mimi Touré am ci Macky Sall Mansour Faye amu ko ci mais foofu dafa sori. Mimi Touré kenn dong moo ko ëppale ci nguuru ablay Wade wala ñaar boobu muy Karim Wade ak ablay Wade ak kii Macky bu ko mooy mi mi moo classé wu troisième ana ngor ana ngor ana ngor fu muy féetee ci doomu aadama Mimi depuis ablay Wade yaa ngi am ay privilège Macky Sall ñëw nga am ay privilège Ous Ousmane Sonko ak Diomaye ñëw nga nga diwaat leen beurre bi mais nag comme ñoom lenn rek maa ngi koy wax sànq ci benn live ma ne leen lenn rek la ma Ousmane neexee mooy Ousmane Sonko su ngeen xasee ànd yéen ñaar boo doon saaga sax waajuram bu jigéen tànk yaa ngi defar affaire am mu defar sa affaire dafa loyal ci ànd ànd moom lépp lañuy ñuy jiiñ Sonko ba mu des wor ci biir ànd bu ngeen di ànd du la musa wor moom loolu la gëm que ànd bi intérêt moo ci ëpp que yow sa intérêt mais and ngeen rek mom dalay japp té du la musa bay ak situation bu mën dik am nak dalay japp mais xolal ma ya mimi Touré est ce que mimi di nga dem teud sa bir néeg bu goudi nga nga tal moment bi nga nekké ci siège APR Ousmane Sonko nek ci siège ngeen di sanni wante ay track di xex yeen ñaar ci média opposés est-ce que loolu boo ko seetaanaatee doo ñoppati sa bopp ne est-ce que kii man la mimituré est-ce que man la mimituré premier ministre du Sénégal sur l'ère Macky ministre de la justice sur l'ère Macky Sall nga Karim Wade présidente conseil économique social environnemental sur l'ère Macky deux fois directrice de campagne sur l'ère Macky est-ce que mimi yow di nga dem bané yow man mi bes dina jot ñu tek ma ci jak tak ma ba ma avantage ya ma amone privilège ya ma amone yeb jeex tak yeb jeex ma jàkkarloog yàlla jàkkarloog suñ borom bi mu nan ma ana kóllëre ma nan ko mu ngi sama ginnaw mu nan ma yalla mooy wax ak yow de mimi ndax âge bi nga am âge bi nga am c'est l'âge de sagesse c'est l'âge de la retraite. C'est l'âge de sagesse, c'est l'âge de la retraite. Ngawara Munoto, 11 ans et demi presque. Nga andoko avec qui dit Makisal, voilà beaucoup 10 ans et demi. Parce que depuis 2011, nga andi yennyar. Jusqu'en 2022, nga andoko yennyar. Heure bonne et Makimunela amul problème, j'en ai là. Heure bonne et Kofili la bogumunela mungini tiye. ba sax nit ñi nga xamne seen xel dafa gàtt nan xeyna yaak Macky Sall lu ngeen sax yaakar na ni Macky Sall bu set dina set keneen kudul ka nga xamne bu tejo ci nek di wax nga ne grand mo nek ci bir mimi yow nga jël yépp ko jël sanni ci bi def conférence de presse tok gis nga amna na signe nga xamne waxon na ko ci Ousmane loss bu guddu bi ni koku gis ci nit rek fenkat la mais nit di wax aussi nit di wax toogoo ci naaj bi nekkoo ci quarante degré ni trente degré ñàkk tooy xep jël mouchoir di fomp yow rek yaa doon fomp ci conférence de presse est-ce que sénégalais yi delluwaat leen ngeen xool conférence de mu Mimi Touré dafa ñàkk durant conférence de presse bi yëpp parce que moom leer na ko même saa olof mi toog ci ginnaawam mu ngi reetaan quoi naan maire bi moo mën a eh, sarab lii waay comme ni ko Seck di waxee ah yow maire yow 60 ans boo ko xasee am ngir yàlla ak yonent bi nga war a mën a toog nga ne man kat lépp la ma defoon ci lu bon dama koy jéggalu ci jamono ji ñu toll nii ma ma ut fierté ci sama bopp ut fierté ci sama njaboot surtout que yàlla dénk la njaboot bu jigéen war a mun a toog ne man ñi kat am na la nga xam ne dara mënatuma ko jaral ci àdduna rien du tout mais nga jaay sa bop ciup sa bop ci xalé ya nga xamantene buñ dajalé sen ñaari ati lu tout rek nga maglen sen ñaari ati buñ ko dajalé lu tout rek nga maglen nga mëna jaay sa bop tok naan na ma ka shalla la a dajel ma ka shalla la a waxal mais mimi mais mais est ce que tu tu réfléchis au, au, au fait quoi Et intellectuel, d'accord, mais il y a des intellectuels malhonnêtes et tu, en fais partie. Il y a des intellectuels malhonnêtes et tu en fais partie. Tu en fais partie. man ak yow dañ daan ootante téléphone ba goudi. dem nga campagne eh, fële législative à Ziguinchor am na keneen ka nga xam ne tey na ci APR Benno Bokk Yaakaar mu ngi ànd candidat Aly Ngouille Ndiaye bi fi nekkoon candidat présidentiel ku jege président ba mu defoon ko fi ministre conseiller pourtant yéen ñaar yéen a daan toog di ma oo di ma oo di waxtaan ak man mais man de yaay mi Mimi bu dee xaalis dong doy na duma awma dara nag mais bu dee xaalis kese mooy tax ma cuub sama bopp non doy na bu dee privilège bu mu munti ga nekk na doy na man sama deret bi buñ ko daggee deretu sama yaram bi buñ ko daggee deretu Sonko du ci génn nii Diomaye nii Macky Sall deret bi ciy génn saar lay sant deret bi ci génn sama bos lay doon yaay booy seetaatal sa bopp nga xoolaat sa bopp te xam ne at yi nga am moitié bi sax dootoo ko dund si tu as ans munootoo dundaat 60 ans da ngay dem sa yoon 60 ans boo ko dundaatee boo dundaatee 30 ci at yi boo ko ci doolee yow say at boo deewul it dangay ngay dem sa yoon parce que dootoo amal nit ñi njëriñ say sët ñoo lay tal nga war a xam ne maximum ci sa carrière politique li ci des mootatul vingt ans nga war a jël vingt ans yooyu dénk ko suñ borom te xam ne loo fi amuloon dootoo ko fi amaat Ousmane Sonko Diomaye luñ la qui ka fait parce que jamais premier ministre ci coalition bi jamais ñu jël la def le ministre de la justice ci coalition donc lan directrice envoi spécial wala comme ya nga DER lañ ko jox koy titero. DER ka nga ministre ministre tey ñu jox la DER la nga xam ne barki Dembo Njaay lañ ko créé est-ce que du ngeen dem ba ñàkkal lan mooy état ñakkal fayda lan moom mooy autorité ñàkkal fayda lan mooy mag mais c'est vrai c'est normal parce que vous avez formé des jeunes avec vos imams yi coché saaga ba naan saaga leen financé leen ñiy saaga man de am na la nga xamante ne su ma doon dee sax laa la wax ndax xiif du génn ci sama gémmiñ bi ndax li ma la xamal bu ma doon dee ak xiif du ma ko wax ci biti wallahi wal azim du ma ko mus a wax ci biti mais yow cere ji saf na laaloo nga toog bëgg a wax yaag Macky Sall li ngeen waxoon yéen ñaar cere ji saf na suukar nga toog di wax yow yow ak eh, eh, Amadou Ba li ngeen waxoon ci biti ci biir ci biir nekk ana homme d'état li moo tax kenn wóolootul kenn nous sommes dirigés par des menteurs mentologues et mente plus que mentologues même j'ai même pas les mots des renieurs yow Mimi 2012 jusqu'en 2022 là wax amul privilège bofi amul amul bofi amul normalement rapport yi ngay xam nga sama papa nee na eh, xaw ma lan bu bu repee ci xare lu mu jiñ rek xeeb ko lu mu jiñ rek xeeb ko yaa ngi yuuxu rek rapport yi rapport yi nañ ko génnee Mansour fay épinglé ni kon mais Mimi barki Dembo Ndiaye lañ la épinglé à plus d'un milliard de francs CFA donc Mansour fay bu demee rëbës yow da ngay dem camp pénal liberté 6 su kumba ndey amul ndey ak kumba am ndey nan lañ koy waxatee sax ci ci olof séeréer la kumba am ndey ak kumba amul ndey su amul jomaay mun a jub jubal ak jubanti gudee loo loolu rek lay dawal Mansour day jaar nee dem Rebeuss yow nga jaar nii dem Liberté 6 Camp pénal te boo fa demee normalement waruñ la yóbbu ca góor ña mais waruñ la yóbbu aussi ca jigéen ña daa am feneen fuñ la war a teg feneen fuñ la war a yow mi mi man suma ma doon yow dina raar ci arène politique bi suma ma doon yow suma doon yow jomaay ak Sonko luñ ma munti ka ne ma demal nga tontu ji demal nga defal ñu campagne législative mimi nous sommes intelligents nous sommes des des opposants mais républicains nous sommes des alerteurs mais républicains nous sommes en grosso modo des républicains lépp lu ñuy wax ci yar lañ koy teg ci teggin ak ci xam-xam yaa ma ëpp xam-xam foofu parce que yaa ma gën a jàng mais sa xam-xam bi danga ko utiliser ci lu bon utiliser ko ci lu baax té mak mu toll ni yow nak waroon na jël xam-xamam utiliser ko ci lu baax say moromu jigen yi ma xam yor âge bi nga yor yor yor yor ndombo tank yuñ fi yam xolal ki di yaay soxna jeng mbacke do ko deg du du du sax nek di mbedd mi di wax xolal ki di mer ndoro njay do ko deg mu ngi japp njamburam xolal ki di ya waré sar buy wax day wax ce qui est l'essentiel mu paré ci ni ni xolal sa bop nga xol say moromu jigen yi nga don defal politique yow ak Aïda Mbodj dong yéen a ci des di jouer au naaféqisme est-ce que sóoraale ngeen seen bés bi ngeen di tëdde bés bi ngeen di génn àdduna yàlla na yéex est-ce que sóoraale ngeen ko bés bi ngay génn àdduna sóoraale nga ko bëgg xale yi génn taal bëgg dem assemblée nationale comme président euh, xawma lan asa présidente assemblée nationale ce que tu as tant rêvé loolu jaral la nga toog oo nit ñi ñu toog cette semaine bi nga xamante ne semaine boobu c'est coloré de malchance muy yow muy baarale baarale moom li may wax ci moom du bëri muy baara njaay dama lay ñaan ngir yàlla comme def nañ la chargé de mission yóbbu la port dafay xaalis bu bari xanaa war nga maa mën a delloo sama xaalis bi nga xam ne danga ko triandé woon sama doom feebar nga ne yow mun nga ko faj ñu yónnee la xaalis bi nga jël ko lekk ko keroog ba tey nga ñu bloqué nangootoo ah, nangootoo ñu jël yow téléphone muy man ak yaayam xanaa war nga ñoo mën a fey suñu xaalis man foofu rek laa la yemale soone therese fay soone amadou ba soone diw soone diw soone makisal soone ki soone ki ñooñu ay dernier public lañ yoroon alalu mbooloom lañ yoroon mais man sama alal bi ma liggéey moomal ko sama bopp laa la yónnee pour nga faj sama doom nga jël ko lekk ko xanaa ngir yàlla war nga seet yàlla delloo ma ko mayuma la ko am naa lu ko ëpp fuuf maye naa lu ko ëpp fuuf mais lii moom maag yow ba keroog yalla taxaw nga taxaw nga wara dem aljana ma wara dem safara mu manke ma tuti te loolu manke ma yor nga yor ko ñu jël ko ci yow jox mako yow nga dem safara ma dem aljana kéro bobu la la koy bal politique Sénégal dafa dem ba nek la nga xamné il faut que nga nek ko bon il faut que nga nek ku il faut que nga nek ku il faut que nga nek nga ne yow wulo dara ci suba yow pour yow lépp tey la yem loolu ci ngay nekk politicien sóoraale woo dara ci ngay nekk politicien mais boo sóoraale yàlla sóoraale suuba mais ñu ne yow mi dangaa bon sóoraale leen yàlla ci li ngeen def surtout yow Mimi Touré xëy na boo déggee li may wax sa juriste boobu nga yónni woon diaspora news ma wax ko li mu koy wax bu la ko yeggee yow it nga jël li ma la wax nii ñu yónnee la ko xanaa di nga toog nag def ni Ousmane ko def benn recul duggaat ci sa biir kàmb ne leen eh booy lépp lu ngeen may fal bëggatuma ko man bàyyi leen ma ma jaamu yàlla lii de boo ko defee yàlla yëkkati la ci kaw